jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu mbokku auditeurs yi vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di farataal di teelu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amaat mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, Doudou Sène Doudou Sène mu nekk coordonnateur national euh, du programme national de lutte contre le paludisme Doudou Sène nag ginnaaw bi nga la fa fële bu baax a baax ci sa OFT ak sa disponibilité ñu lay wax euh, dalal dal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci invitation bi di nuyu tous les auditeurs de Rewmi FM di am mbégte tey di partager li nga xam ne mooy suñu li ñu xam ci wàllu xeex sibiru bi fii ci Sénégal. Mhm. ci contexte bu particulier boo xam ne Covid rek la waxtaanee. alors que sibiru dafa nekk feebar boo xam ne moom itam noonu la grave ba continuer di tamit di rey nekk tamit priorité bu mag fii ci suñu bi uh-huh. donc su ma defee un peu benn euh, résumé ci fan lañ ci toll ci xeex sibiru bi fii ci Sénégal mën naa wax ne ci fukk at yi mujj yi nii uh-huh. Sénégal mi ngi door a terminer benn plan li ñuy wax plan stratégique plan stratégique dafa nekk document boo xaymaa li nga bëgg a def ak ñaata la lay coûter juróomi at yu nekk bu njëkk bi donc 2016 la woon ba 2020 mais ba ñu defee lii nga xam ne mooy bilan xool loolu ñu jot a def ci juróomi at yi passé lan la ñuy jural gis nañ ne sibiru bi wàññeeku na bu baax a baax a baax ci Sénégal mm-hmm. wàññeeku na bu baax waaye dafa des tey ay zone yoo xam ne moom la wax zone rouge bi mun naa wax ne foofu la sibiru bi des lu bëree bëri bëri. Mhm. mais ça ne veut que jeex na ci yeneen gox yi. tey boo jëlee cartographie c'est-à-dire boo jëlee benn carte da ngay gis ne Sénégal mën nañ ko colorier ñetti façon. Mhm. bu verte bi mooy fi nga xam ne boo jëlee junni nit juróom rek ñoo ciy def sibiru environ ci at mi muy cinq pour mille. cinq pour mille. ñoom la ñuy wax la zone verte. muy dem bët gànnaaru Sénégal Ndar Saint-Louis euh, muy Matam muy Louga région de Thiès une partie de Fatick une partie de Ziguinchor pour wane na rek mi ngi wàññeeku bu baax a baax ci gox yooyu yëpp boo demee ci digg Sénégal lu mel ni Kaolack Kaffrine ay Diourbel mhm. foofu moom la ñuy wax zone jaune bi mu nekk zone intermédiaire bi foofu boo jëlee junni ni tey mun naa ne ñiy am sibiru toll na ci fukk ba fukk ak juróomi nit ci at mi moom la ñuy wax zone jaune bi. Mhm. zone rouge bi nga xam ne nag tey jii fa la sibiru bi lëmbee des fa di rey comme c'est pas possible moom la ñuy wax zone rouge foofu boo jëlee junni nit du nekk mun naa ne lu tollook ñaar fukk ak juróom dañ koy am at mu nekk ba jëm kaw foofu mun naa ne tey jii population bi nga xam ne moo nekk dans la zone rouge. c'est environ deux millions de personnes et quelques sur les seize millions dix-sept millions du Sénégal mooy wane ne nag ñi nga xam ne cible bi ñoom la sonal wàññeeku na bu baax par rapport ak population général bi tey jii Kédougou Kolda Tambacounda mooy fa cible bi gën a concentré wu fa la nekk parce que tey jii nawet bi dugg na depuis pratiquement mois de mais mën naa wax foofu ci zone yooyu mi ngi taw boobu tey mhm. muy Kolda Kédougou ak Tambacounda foofu la gox yi nekk léegi nag résultat yi ñu am lan moo ñu ko indil bi ci njëkk mooy dafa war a am li ñuy wax engagement politique au plus haut niveau mhm. ñoom président de la république wane ne man kat am naa yéene sur loo domaine de santé si biir bu jóge fi te loolu ñoom firndeel nañ ko ci seen i taxawaay ci nan mooy déjà financement yi nga xam ne mooy ñëw macha allah Sénégal def na kéemtalaay kàttanam ba jumtuwaay yi ñu war a am yëpp jëm ci wàllu sibiru bi mettre na ko à la disposition du programme à travers le ministère de la santé ci ñetti fànn fànn bu njëkk bi mooy benn partenariat bu mu am ak ses partenaires muy le Fonds mondiale mais également l'initiative présidentielle américain mm-hmm. pour l'élimination du paludisme ñu koy wax PMI USAID mm-hmm. ñaar ñooñu ñooy principal bailleurs yi nga xam ne ñooy jël seeni koppar di ko dugal ci suñu réew mi bi ci des mooy banque islamique de développement Sénégal dafa signer un partenariat pour àbb xaalis pour injecter ko loolu mooy firndeel encore cette ferme volonté de l'État du Sénégal à éliminer le paludisme donc pour que dire que ay ressources yu considérable dugal nañ ko ci mhm. mooy bu njëkk bi mobilisation ressources yi li si des boo ko xoolee ci ñetti fànn rek nga koy jël fara souvent pour mën a comprendre parce que dafa am yoo boo xam ne moo koy indi ñu koy anophèle mooy dem fekk nit ku yore doomu jàngoro bi bi ñuy wax place moo jëm plasmodium falciparum mu ci sa deret jël ko yóbbu ko feneen beneen nit wàllu ko feebar bi donc ñun xeex bi dafay nekk ci ñaari fànn ak ñetti fànn ñaar mhm. ñett mhm. bi ci njëkk mooy fexe ba yoobi bañ a mën a faagaagal nit yooyu dañu am fu ñu dëkk mhm. environnement boobu ngay fexe ba environnement bi yoobi du mu am fu mu dëkkee parce que sa noon boo fexe ba bu mu dëkk sa rek mën na laa bañ a gaañ te yoobi donc ci ndox muy taalay nekk moo tax mu dëppoo ak nawet lu ci bëree bari bu nawet dikkee ci la sibiru di bëree mais bu nawet bi demee dootul am fu mu dëkk de telle sorte que donc xeex bi dañ koy jublu ci fexe ba faagaagal yoo bi wala fexe ba yoo bi bu mu ñëw ci yow mii pour matt la ci fànn boobu ñuy jël ay moustiquaires mooy premier élément bi mooy moustiquaire imprégné à longue durée d'action en 2019 Sénégal organisé na fii campagne boo xam ne neuf millions de moustiquaires séddale nañ ko à travers tout le Sénégal pour presque naa mun naa une valeur de dix-sept milliards de francs kër gu nekk dugg nañ fa am nañ ay relais yu fa demoon moustiquaire yi nag seen durée de vie trois ans la moo tax ñu bëri dañuy laajte tey jii nan lu tax séddalewuñu sànke su ma la joxee sànke tey sànke bi du ñaari fan du loo xam ne comme boote su ngoom la nga xam da nga yéey rek sànni mm-hmm. day nekk sa kër nga koy toppatoo ñetti at la war a durer normalement bu yàqoo am nañu système bu ñuy wax système de routine boo xam ne chaque fois boo soxlaa boo demee ci poste de santé bi wala ci centre de santé bi ñu mën la ko jox mm-hmm. muy beneen fànn bi mhm. beneen bi ci des mooy aspersion intradomiciliaire ay pompé yoo xam ne dañuy pompe pour faagaagal yooyu yi nga xam ne ñuy indi sibiru daaw ak daaw jéeg ak daawaati jéeg def nañ ko ci ay gox-goxaan yoo xam ne dañ leen di ciblé mel ni Kédougou Tambacounda euh, Kédougou Koumpentoum Koungheul ak Maka Koulibantang ñoom bénéficié wu nañ ci li ñuy wax aspersion intradomiciliaire mun naa ne plus de six cent mille personnes mën nañ leen a couvrir nañ leen ci campagne boobu ñu defoon avec l'appui de l'USAID mm -hmm. à travers Vector Link mhm. nga xam ne dañuy pomper ay insecticide ci kër yi insecticide yooyu mun na def juróom benn weer yoodu dugg sa kër mhm. loolu mu nekk stratégie boo xam ne stratégie bu am solo la waaye qui coûte excessivement cher mu nekk stratégie saisonnière aussi saisonnière la mhm. avant nawet bi dugg si ci la ñuy dem pomper kër yi ñu def ko trois ans d'affilée ñi ngi door a terminer suñu campagne yi mhm. ñi nga xam ne def nañ ko ci côté Kédougou noonu mhm. boo demee bët gànnaaru Sénégal tamit waa dans le cadre du projet euh, BID Banque islamique de développement def nañu foofu ay campagne d'aspersion intradomiciliaire mhm. jublu ko ci district de Kanel district de Linguère district de Matam ak district de Ranérou parce que foofu di euh, bët gànnaaru Sénégal maa ngi lay wax ne sibiru bu wàññeeku na mais boo demee ci gox yooyu ñu tànn pour di fa la sibiru bi gën a baree ci côté boobu parce que danaa la boo jëlee junni nit ay juróom ñoo koy am mais juróom yooyu dafa am fu mu concentré wu ci bët gànnaar bi mhm. donc il faut ñu nettoyer foofu pour que ñu mën a éliminer completement mhm. parce que neena la jeexal nañ suñu plan stratégique plan stratégique bu bees bii nga xam ne moom lañ dugg muy deux mille vingt et un deux mille vingt cinq suñu objectif mooy fexe ba transmission bi c'est-à-dire wàllante sibiru bi ñu arrêté ko dans au moins boo demee téeméeri district juróom ñett fukk yëpp ñu fexe ba transmission bi ñu arrêté ko. Mhm. te loolu ñu ngi ci parce que tey jii soixante dix neuf districts yi mën naa ne plus de cinquante pour cent cinquante districts yi yi ñoom ñëpp ñu ngi dans la zone verte. Mhm. donc pour wane ne donc ñu ngi progressé. donc si on fait beaucoup d'efforts encore rek yàlla mën nañoo dimbali. Mhm. beneen stratégie bi ci wàllu toujours prévention bi. mooy. nan la ñuy fexee ba jigéen ñi wërul yi parce que ak xale yi ñoom ñoo gën a am vulnérabilité exposé exposé donc ci fànn boobu am nañu beneen stratégie boo xam ne dañ koy jël muy prévention à travers des médicaments jigéen ñi wërul yi dañ leen di jox li ñuy wax la sulfadoxine pyrimétamine ñu koy wax SP jigéen ñu bari xam nañ ko à travers communication bi ñuy def mm-hmm. ñu ëmbee ba dugg ci seen ñetteelu weer yi dañ leen di faral di jox ay doom yoo xam ne moo leen di aar aar seen ëmb bi parce que sibiru bi ni muy def ci jigéen bi warul mooy dafa xaw a garaaw non seulement mën na faagaagal jigéen bi par ay anémie yaram buy tàng te yaram bu tàng bi day am impact ci bém bi muy ëmb ci mhm. biiram ba tey mën na ko def avortement mhm. wala jom ji dudd nekk doom boo xam ne faible poids lay nekk donc muy beneen euh, muy beneen fànn prévention traitement préventif mais mhm. en même temps di soññ jigéen ñi pour ñuy tëdd ci sànke bi ci des mooy xale yi nga xam ne dañu am ñetti weer ba am fukki at stratégie boobu moom la ñuy wax chimio prévention saisonnière du paludisme ñu koy def ci ay gox-goxaan tamit fi nga xam ne sibiru bi fa la gën a bëree. fa la amee doole moo demee amee doole. boo Kolda tey jii ñu ngi door a pare suñu troisième passage. Mhm. au niveau de Kédougou. mais deuxième passage dans les zones euh, non non deuxième passage pour Kédougou mais premier passage pour les zones de Kaolack Diourbel Kolda ak Tambacounda. Mhm. foo xam ne pendant ñetti fan dañuy wër kër këroo kër foo xale nekk bu am ñetti weer ba fukki at ñu jox la garab boobu ñuy wax sulfadoxine pyrimétamine associé ko ak amodiaquine. Mhm. porte à porte la. porte à porte ay relais yi ñuy formé jox leen ko ñu dem. Mhm. loolu seetlu nañ ko fañ koy def yëpp sibiru bi day wàññeeku bu baax a baax a baax day dellu ginnaaw dañuy aar xale yi lu bëree bari bari foofu mu nekk beneen stratégie boo xam ne tamit partenaires yëpp ñu ci jàppale mais particulièrement USAID PMI moo ci jàpp ci initiative boobu mhm. yeneen stratégie yi mooy une prise en charge précoce parce que sibiru même boo ko mënta jeexal pour le moment mais da ngay fexe ba nit ñi bañ cee faatu mooy sa yaram bu tàngee rek mhm. dañuy fexe teel la xam ne lii sibiru la mun la jox tey garab parce que tey état def na effort ba nga xam ne benn garab doo ko jënd normalement ci pal bi gratuité. c' est gratuit. Mhm. tey ku am sibiru boo demee ACT yi dañ la koy jox gratuitement. Mhm. mais am na yeneen garab parce que yeneen boo amee sibiru am na yeneen garab. na ci boobu pour ñu bañ am ay confusion parce que Sénégal looy wax na nga ko xam. Mhm. yan garab moo moo moo ACT bi la ñuy joxe gratuitement. ACT bu nekkee paludisme bu grave injection bi ñu lay defal. muy artemètre bu efficace boo xam ne boo koy jël dans les quarante huit nga gis ni sibiru bi dañee mm-hmm. moo tax sibiru nit waratu cee faatu mm-hmm. am nañu moyen prévention yi am nañu garab yi koy faj mm-hmm. donc li ñuy ñaan à travers ces zones di ko wax auditeurs yi rek mooy ku sa yaram tàng parce que contexte bi dafa particulier tout ñu ngi ci contexte boo xam ne covid bi attan naa yàq li ñu liggéeyoon lu bare bare ci sibiru parce que nit ñi ragal nañu ngeen dellu ay ñi ragal nañu nee nañu duñu dem parce que tey maa ngi lay yaa ngi wax sànq ci sa introduction que dans tes gis nga ne amoon nañ une augmentation effectivement mm. résultat yi deux mille vingt dafa montrer que ne mm. entre deux mille vingt et mille dix neuf am nañ une augmentation de vingt cinq pour cent de cas parce que daaw en deux mille dix neuf on était à plus de trois cent et quelques mille cas ren ñu ngi ci quatre cent et quelques loolu li ko waral nag bari na ay explication mun na nekk lié au à la Covid parce que nit ñi bu ñu seen yaram tàngee bu ñu nanguwul dem hôpital toog seen kër par exemple yow Fatima boo amee sibiru boo toogee sa kër yoo bi nekk fa man ma nekk ak yow foofu yoo bi mën na ñëw jël doomi jàngoro bi ñëw transmettre ma ko. transmission bi. transmission bi mais bu ma la teelee faj yoo bi même bu ñëwee màtt la bu ñëwee ci sa deret bi du ci fekk doomi jàngoro bi. Mm-hmm. comme pour corona bi noonu lañu war a doxalee. Mhm. corona bi bu ñu ko teelee jël par exemple dépister ko très tôt isoler nit ki faj ko mun na bañ a wàll ñi ci des même stratégie boobu dañuy utiliser ci palu tamit. Mhm. palu plus ñu teel a faj nit ki plus mu wàññi nombre de mi yi Euh, euh, monsieur euh, Doudou Sène yaa ngi koy wax ah, am nga ay liste yoo xamante ne ay prévention la mais am na ay nit yoo xamante ne dañu xaw a réticent bu fekkee Dakar la wala ci région yi dañu xaw a réticent ci li nga xamante ne moom moo di moustiquaire imprégné ñooñu ndax am nañu beneen alternative ngir aar leen jëm ci jàngoro bi di sibiru alternative bu njëkk bi daal mooy. Mhm. bu weesoo sa environnement bi ngay fexe ba fexe ba muy set. ndox taataayu ndox yi sa boori kër yooyu fexe ba yoobi ba ñu dund en dehors moustiquaire bi ñi nga xam ne bëggu ñoo takk moustiquaire si am nañu possibilité tey pulvériser seen kër avec des produits d'insecticide qui permet de ñu rey insecte euh, ñu rey anophèle bi c'est tant mieux mm-hmm. mais li gën a simple gën a recommandé mooy ñu jël moustiquaire parce que day créer benn barrière entre ñoom ak moustique bi et ça leur permet de dormir tranquillement mais malheureusement euh, message bi yenn saa gars yi dañ naan dañu communiquer mais Sénégal ku xamul sibiru léegi man daf may xaw a jaaxal. Mhm. parce que wax nañ fépp ah. Mhm. depuis des années depuis plus de quarante ans sibiru bi nit ñaa ngi ciy wax di ci wax xam nañ ne sànq yi pour loolu la. Mhm. donc nit ñi nag ñoo neexut a waxal parfois. faut se dire la vérité. Covid baa ngi nii di ko joxe exemple. tout pour se protéger comment on doit faire et cetera koy wax du matin au soir. Et après, ils vont dans les médias pour dire qu'il y a des problèmes de communication. Ça, c'est des histoires. Mhm. man man maa ko wax. d'accord donc il faut que les gens acceptent. parce que état dafa am nu organiser wu. y a des professionnels man mii ñu dénk Sibiru tey. c'est pas pour rien ñu teg ma fii je suis spécialisé en santé publique j'ai fait plus de vingt ans dans la brousse xam naa li mu xew. Mhm. donc su ma waxee dara nit ñi dañu war a déglu loolu ñuy wax. voilà c'est pas que voilà yow da ngay toog rek am sa xale xalaat bu ndaw rek toog ci rajo bi di wax lu mu la neexee. Mhm. dañuy déglu ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox xam-xam boobu ñu wax te ñoo ñu nekk ñu dëggu tamit bañ di wax loo xam ne day lor askan bi. Mhm. ñun en tout cas lu jëm ci wàllu sibiru meilleure stratégie bi mooy ñu takk sànke. Mhm. bi ci des fexe ba dans ton environnement ndox ñi bañ a taa parce que yoo bi foofu lay dund bu sa yaram tàngee nga teel a dem am na li ñuy wax test de diagnostic rapide. boo xam ne gratuitement lañ ko war a def normalement dans les postes de santé si c'est positif ñu jox la ay ACT nga jël ko. Mhm. s'il s'agit d'un paludisme grave on a des médicaments très efficaces ñu koy wax artéméter moo tax on a une baisse drastique du nombre de cas de décès il faut le reconnaître aussi mhm. sur les dix dernières années. Mhm. donc voilà en résumé les grandes stratégies nga xam ne moom la ñuy def li ci mooy la surveillance et les investigations parce que plus ñuy avancer vers l'élimination plus ñuy am nécessité. di topp kaay boo demee tey bët gànnaar Saint-Louis Louga maatam am na ñu avec l'appui de Macepa un autre partenaire bi ñuy accompagne cas bu nekk dañuy def lu ñuy wax investigation tey boo dëkkee kër X nga am sibiru dafa am équipe buy ñëw ba ci kër gi xool ñi nga dëkkal laaj leen ay question est-ce que tëdd nga ci sànki démb et cetera fan nga jógee et cetera ba xam ndax sibiru bi dañ ko jëlee feneen indi ko wala ci gox bi la jóge mm-hmm. bu ñoo xamee ne ci gox bi la jóge am na li ñuy wax riposte dañ fexe ba pomper foofu fexe ba taata ndox yi jox sànq ay waa kër gi ba pare ñi nga xam ne dañ leen di testé waale ci automatiquement ci biir kër gi ñu dëkk ci kër gi pour xool ndax doomu jàngoro bi nekkul ci ñoom bu ci nekkee ñu traité leen mm-hmm. loolu moo ñuy permettre même stratégie boobu je pense que moom la ñu war a commencer def tamit ci wàllu lii nga xam ne mooy covid 19 bi donc pour vous dire que rek approche yi dans la lutte contre les maladies ñoom ñëpp a xaw a niroo. mais c'est toute une chaîne aussi. c'est toute une chaîne. Mm-hmm. mais stratégie yooyu yëpp pour mu am njariñ il faut une adhésion de la population. parce que tey su ma ñëwee sa kër ne la tey am na ku fi am sibiru boo ma nanguwul recevoir du sotti wala boo nanguwul wax man en tant que technicien professionnel de santé su ma la expliqué wul li li ñu bëgg def boo ko nanguwul wala boo ko dégloo ba pare te jëfewoo ko du am ba tax na donc pour ñu mën a xeex correctement feebar yi nga xam ne mooy loru askan bi il faut que population bi di accepter. Mhm. parfois message dañuy bari fu nekk lay jóge mais li gën a wóor mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci réew mi dénk leen loolu dañ leen di déglu en priorité. Mhm. Mhm. jusqu'à preuve du contraire. parce que yaakaaru yaakaaruma ne tey jii nit am na fit nekk ci réew mi di wax loo xam ne day lor askan bi man boog aw ma fitam boobu. en tant que coordonnateur du programme lu ma laaj ci sibru suba mu ngoon rek yàlla moo tax ñu koy wax mhm. te nit ñi dañ ko war a jëfee te yàlla rek tax mhm. man sama xel xalaatul ñu jël produit boo xam ne day lor askan bi man ma koy valider di ko audil mhm. donc di sensibiliser waat population te message bi su ma koy wax c'est plus par rapport ak Covid bi parce que Covid bi ni muy impacté ci suñu xeex bi dafa bari ci yëpp lay ci yëpp lay impacté de telle sorte te Covid bi ni ma ko gisee nii jógee ko fii jóge gu fii dafa donc dafay dem boo moytul day dem ba mel ni sibiru ah ni mu nekkee fii pendant depuis mille huit cent xam nga sibiru depuis mille huit la ba tey mhm. mënu mu fexe mënuñu ko fexe ba jëlee ko fi grippe bi ma gis nii tamit euh, covid bi euh, ni muy lëmbee àdduna bi euh, nga xam ne du feebar bu ñuy jëlee fii ci at yu néew donc ñu gën a góorgóorlu di topp directive yi mënumaa ñàkk wax ci covid bi daal pour que nit ñi gën a bàyyi xel. a bàyyi xel boo duggee ci car yi ñu sol masque boo amul looy dox lu spécial nga toog sa kër. parce que plus ngay déplacé wu plus nga am chance su jëlee ko fenn andi mm-hmm. man def naa Covid. mais man def naa mesure ba nit ñi dañoo foog ne man damaa ëppal sax. Mm-hmm. mais terewul man affaire bi dal na ma. da ko chopé. mais yàlla dimbali na ma ba ma génn ci. Mm-hmm. te li ma ci génne peut-être bu weesoo suñu borom bi nga xam ne mooy dogal lu ko soob. Covid man dama jàpp ne vaccination bi ma vacciné wu. moom ma permettre tey ji en tant que diabétique hypertendu comme ñu ngi doon wax ne tu es très sensible mu sauvé ma nag mooy seetlu ko sax mu def ko donc nit ñi nañu vacciné wu. Mhm. mais théorie ci nag dafa bari. Euh, justement euh, yaa laal brèche boobu théorie bi ci nekk dafa bari mais théorie bi aussi ñu koy def euh, je pense que du le sénégalais lambda c'est le corps professionnel ba moom moo waxal ñi nga xamante ne ñoom ñooy le citoyen le sénégalais lambda sénégalais bi des fois même bu buggee dem sax bu déggee version yi xaw a wuute moom itamit xelam du dal foofu est-ce que dañu war a euh, xoolaat communication bi ba euh, version yi nekk benn ngir askan wi ñii wax non c'est difficile parce que Sénégal mhm. dañ ne c'est un pays démocratique ku jóg dem yóbbu ci télé bi wax lu la neex tu vois mhm. moi je suis médecin santé publique ça vingt ans d'expérience de par mon expérience mhm. toutes les grandes maladies yu ci bëree bëri souvent vaccination bi moo ci jàpp lu bare bare ak mesure yi nga xam ne mooy mesure de prévention yi édicté c'est vrai que feebar bi ñëwee na néew boo xam ne nii bett na àdduna yëpp théorie yi dégg ci rajo yi bari na uh-huh. ba finalement yow mii sax en tant que médecin da ngay dem ba ngay am doute ci sa bopp ci li ñuy wax ci fabrication vaccin bi méthodologie bi ñu ci adopté parce que bu njëkk bi effet secondaire yi mais amul benn garab wala vaccin bu ñuy dugal ci doomu aadama sur dix mille personnes te doo am effet secondaire. Mhm. amul vaccin garab yi ma lay ne moom la ñuy séddale ci wàllu sibiru par exemple boo demee fële tubaa wala ay Diourbel xale yi dañuy wàccu mais boo jëlee sur cinq cent xale peut-être ñeent wala juróom ñoo ciy wàccu. Mhm. donc effet bi ngay am est-ce que wàcc boobu war na tax nga bàyyi garab bi man tey jii peut-être su ma jël woon vaccin bi leneen la ñuy wax parce que dañ doon wax ne ku amee diabète hypertendu boo amee Covid dafay gën a sonal tey jël naa vaccin farment bi. Mhm. te yàlla rek moo tax mooy wax. Mhm. peut-être man jàpp naa ne bu weesoo ndogalu suñu borom man vaccin bi laa jàpp ne moo ma dimbali. donc mënumaa tey am occasion occasion bu mel nii ci Rewmi FM te du ma ko wax Sénégalais yi. Mhm. nañu jël vaccination bi. seen bopp aar seen njaboot. wàññi dox bu amul njariñ bi. parce que tey peut-être conditions socio économique yi moo permettrul ñu confiner mais la logique voudrait que tey ñu reconfiner nit ñi nit ñi toog seen place parce que la situation est extrêmement la situation grave l'impose. la situation est extrêmement grave Fatima mm-hmm. je viens de perdre une sœur qui est décédée avant-hier elle n'a pas de place parce que toutes les structures de santé sont pleines mm-hmm. yëpp mm-hmm. hôpital yëpp Et les gens n'ont pas la Covid comme maladie. Il y a d'autres maladies. Les palu ñu ngi ñëw ñu ngi période nawet actuellement finalement yaram bu tàng bi boo ñëwee dootoo xamati ñi am war a accoucher ñi am Covid tey jii ak euh, ak grossesse Covid bi effet bi muy def ci ñàkk mën a noyyi bi te yàq sa ëmb Euh, boo jaarul mu mu rey la mhm. ñi amee AVC il faut les prendre en charge amee hypertension ñi am des problèmes chirurgicaux mhm. et occasion pour moi aussi ñu gërëm féliciter ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain sargal leen di leen massawu coono yi nga xam ne moom la ñuy day pour jël en charge correctement suñu concitoyens yi mhm. te mi ngi def lu man mën ah mi ngi def le maximum man pour man c'est le moment où les Sénégalais doivent se rassembler comme un seul homme c'est pas nañu war a bàyyi les divergences voilà nañu euh, tout ce qui est politique politicienne et mmh. se concentrer sur cet événement c'est comme une guerre mmh. a un moment où la nation nit ñi dañu war a mobiliser autour de l'essentiel faire un bloc dans un pays normal mmh. dans une nation normale dañuy bàyyi lépp luy divergence ñëw teg parce que ku nekk ci kanam yaay jëf te boo jëfee di nga juum wala nga def lu baax wala nga def lu lépp mënut a parfait mm-hmm. donc nit ñi nañu am ay critiques objectives yoo xam ne day jëmale dans le sens ñu rectifier tir bi mobiliser wu autour de cette euh, de cette pandémie mm-hmm. pour que ensemble que Sénégal mooy gagné mm-hmm. parce que tey yàq deru ministre wala di ko xas loolu amul njariñ pour man Diouf Sarr jàmbaar la il a fait de son mieux ak comme ku noon di doon dañ ko war a féliciter encourager ko ànd ak moom ci xeex bi. du combat bu yomb. du combat bu yomb. Mhm. donc ak ku mu fi mënoon nekk doo def lu ëpp li mu def. voilà mhm. il a fait des efforts il faut le reconnaître léegi nag dans cette dans cette dans cette dans ce combat. Mhm. y a parfois des omissions wala yooyu. mais xal du doy ku nekk da nga war a indi sa xalaat. le tout ko defar mais nit ñi fii dañuy wax pour yàq. pour voilà kii war na fi voilà et cetera c'est pas bien. Mm-hmm. il faut que dans les moments de la nation nañu xalaat réew mi quoi. Mm-hmm. nañu xalaat bàyyi suñu bopp. comprendre mm-hmm. donc si je reviens maintenant sur le palu. <laughs> ñu ñu ñu dellu si waat ci li nga xamante ne moom mooy palu bi c'est vrai que euh, Covid bi moom mu ngi fi avec ses euh, nu mënuñu def émission toute une émission te duñ ci wax mais sans que euh, Doudou dama la dégg ngay wax li nga xamante ne moom moo di et paludisme bu bu dangereux bu ma bu ma juumul ma bëggoon xam rek euh, la particularité parce que boo mettre l'accent sur le mot danger rek euh, ça veut dire que am na leneen lu nekk ci biir paludisme dafa nekk feebar bu graaw mhm. deux formes la d'accord allez-y bi ñuy wax paludisme simple boo xam ne sa yaram dafay tàng bopp bi métti mais dina am benn moment bu parasite yi demee ba am benn densité bi day toj sa globule rouge indi benn fièvre boo xam ne fièvre bu doy waar bu sa bopp tàng moo tax nga gis xale yi di crise boobu nag da ngay dugg dans la forme grave. donc ñaari forme yooyu la. Mm-hmm. donc bu demee ba forme grave bi day nécessiter hospitalisation avec un traitement d'urgence boo xam ne comme ni ñuy jëlee en charge Covid bi Covid bi mën na forme simple. Mm-hmm. mais mën na am forme grave. donc feebar boo gis noonu lay demee. Mm-hmm. day simple ba mu yàgg mais mu grave. li grave ci sibiru mooy boo ko fajul day des ci yow te tôt ou tard daf lay rey. Mm-hmm. par contre Covid bi mun nga ko am ba génn ci du la rey. Mm-hmm. mais feebaru sibiru ay forme forme chronique ak yooyu yëpp dañuy wax rek mais o sibiru boo ko faju da lay rey. Mm-hmm. Euh, docteur dogguma la foofu damay dégg ay nit ñuy wax. kii euh, dafa euh, paludé paludéen la passez-moi l'expression je pense que ça paludéen ba xam euh, traitement bi ñu ko war a def moo normal ba chaque période hivernale bon day am paludisme ba yenn saa sax crise yi day jaaxal askan bi muy xamante ne moom lay moom la dëkkal en tout cas li ñu xam ci sibir bi mooy nawet bi bu jegesee mhm. yow bu dëkkee ci environnement boo xam ne tey dafa bari ndox boo xam ne day taa yow bi dëkk fa yoo bi mën na la matt tey nga def si boo wëree dans une semaine yoo bi dem jëliwaat beneen jàngoro indiwaatal la dangay ngay defaat rechute donc c'est pas une maladie immunisante c'est-à-dire boo ko amee mën nga ko amaat mën nga ko amaat donc boo ko amee aussi li nit war a éviter mooy sibiru mun naa bañ a rey nit yàlla certes mooy rey mm-hmm. mais jox nañu ay jumtuwaay yoo xam ne tey jii bu nit feebaree mën na cee génn sans souci mm-hmm. garab yi am na test bi pour wan la ndax am nga ko wala amuloo ko am na. te disponible te lépp c'est gratuit amul dëkk booy dem ci Sénégal la dëkk booy dem te doo fo fekk ku la mën a defal. Euh, euh, test bi moom laa bëggoon wax ci suñu stratégie communautaire. bi mhm. muy prise en charge à domicile des cas. Mhm. tey boo demoon ba Echelon xam nga Echelon fu mu nekk est-ce que. xamoo ko ginnaaw Salemata Salemata xam nga fu mu nekk Kédougou la nekk. Salimata Kébé mooy ginnaaw Étiolo. voilà donc dëkk la yoo xam ne dafa sori ci ginnaaw ay montagnes. ci montagnes yi. Hmm? d'accord. donc pour te dire que. Euh, état def na le maximum d'efforts à travers ces stratégies communautaires village boo dem am na ce qu'on appelle un DSDOM mhm. un dispensateur de soins à domicile tey même bu amul poste de santé moom day am ACT ACT mooy garab bi ñuy joxe mais palu simple rek la ñuy jël en charge nag d'accord ñoom chaque semaine dañuy dugg ci kër yi di xool ñen ñoo ci am fièvre dañuy wut ay thermomètre ay thermoflash foofu ca ñi exemple quoi Salimata exemple bu ñëwee boo amee fièvre automatiquement dañ lay defal test bi bu ñu defee test bi gis na positif na ñu jox la ACT yi mhm. mais bu nekkee dañu ñëw fekk mu nekk forme bu grave dañuy woo seen infirmier chef de poste ñu jël ambulance ñu transférer la te am na lu ñuy wax traitement pré boo xam ne ay suppositoire la yu mu nekkee xale dañ la koy defal pour balaa ngay egg si biir bi commencé wàññeeku sa yaram. mu réduire ko. mu réduire ko pour te dire que donc effort yi ñu war a def yëpp def nañ ko li ci des mooy adhésion des population mhm. mi ñuy wax sànq ci wàllu plan mooy l'engagement des communautés. collectivités territoriales yi. Mm -hmm. parce que ñoom seen compétence santé dafa bokk ci yi mhm. donc collectivité territoriale war nañu bokk ci xeex bi parce que objectif de l'élimination du paludisme d'ici deux mille trente. Mhm. c'est pas une mince affaire ñëpp ci war a jàpp c'est mhm. pas seulement la santé. i y a une approche multisectorielle. multisectorielle. Tous les autres secteurs doivent participer à cette lutte. Comme pour la lutte contre la COVID-19. mais également tout ce qui est assainissement. Et là, je donne l'exemple de Kër euh, Fini, Pikine dégo bi nii à Pikine Dego euh, tey ba ñu defaree ba ñu defaree canalisation yi parce que da daan da daan taa mhm. canalisation bi inondation yi wàññeeku côté boobu yàlla dimbali na ba foofu sibiru dafa wàññeeku automatiquement parce que ndox mi neewatu fa woon. ndox yi stagné wul. ndox donc la aussi c' est une occasion pour féliciter l' état pour tous les efforts yi ñu def ci période bi nga xam ne mooy nawet bi. Mhm. inondation yi wàññeeku na mu bëree bëri. Mhm. ah vrai que des na ay zone mais loolu li ko indi c' de façon structurelle lañ ko war a kii parce que am na foo xam ne yëf fi ndox la ndox moo fa dëkk. place ndox. place ndox la loolu kenn mënu ko lijjanti. Mhm. ce sera des gros investissements. donc c' est compliqué et parfois c' est ak plus contexte Covid bi ñu nekk nii ñu ngi dugg ci encore ci benen crise des inondations donc pour vous dire que Sénégalais dañu war a mobiliser wu. wàññi mu mel ni c'est un comportement individuel bu weesoo effort yi nga xamante ni ñi nekk ci wàllum wér-gu-yaram wala état bi de manière générale def na ko am na loo xamante ne donc sa euh, ressort de la personne muy euh, moom bonne volonté ak li nga xamante ne moom mooy euh, implication personnelle Doudou Sène wax nga ko ah, ci ci ci ci ci approche communautaire bi ak implication des collectivités territoriales loolu bokk ci seen plan.

pacte c'est un benn genre abrégé la P bi muy signifier paludisme. paludisme. A bi di signifier attaquer. C bi di signifier à l'échelle des communauté pour de territoires émergents parce que xam nga dañuy woote émergence. Mm-hmm. te ñun dans notre slogan nga xam ne bañ koy yàgg na c'était un Sénégal émergent sans paludisme. parce que mënoo am émergence tant que ay nit ñi ngi tukkoon di sibiru tey boo demee ci àll bi nawet bi jot. yow nga nekk béykat sibiru bu dugg sa kër mhm. mais mën na yàq sa bay ci at moomu parce que xale yëpp ay tëdd de telle sorte que donc collectivité rentabilité bi pour rentabilité donc on a des approches avec euh, l'appui toujours de l'USAID mhm. boo xam ne dañu sélectionner ay collectivités territoriales mhm. former leen expliquer leen mais auparavant ñoom dañoo signé woon ay engagements comme quoi que ñoom ils vont s'engager à la lutte contre le paludisme et dans ce sens dañ leen sélectionner defal leen formation expliquer leen ba ñuy comprendre ci conseil yi ñuy sélectionné déjà mhm. pour expérimenter loolu mhm. xamal leen ne sibiru bi nii la tëddee nii lañ ko war a moytoo nii lañ ko war lii la ñuy xaar ci comme des doom yi mairie war na mën a jël benn agent mairie ni ngay sélectionné nit ñi mhm, jël ko nga ne ko par exemple dañu bëgg yow nga nekk euh, dispensateur de soins à domicile bu village ou tel commune bi jël ko en charge loolu c'est pas simple c'est pas compliqué waxtaan par exemple subvention yi jox ASC yi ASC yi affaire bi du sport kese sport loisir boobu war nañ ko transformer en des actions citoyennes comprendre nga bu nawet bi jotee ñi nga xam ne ñooy nekk ci ASC mobilisé wu xam nañ ne koñ bi day taa ñu wuti suuf ñëw sëkk ko jël les devants comme on dit donc c'est ça qu'on attend de de de des collectivités mhm. territoriales mhm. bi ci des mooy les femmes ministère de la femme amoon nañu partenariat en deux mille dix neuf te dañ koy renouveler waat mhm. mais c'est à travers ces les femmes que la ñuy gën a mën a xeex parce que femmes yi c'est une occasion de leur rendre hommage ñu toppatoo doom yi ñooy sang ñooy bu ñu feebaree ñooy yóbbu mooy xëy quatre heures du matin sa jëkkër bu feebaree yaay yóbbu hôpital donc c'est des c'est des c'est des piliers donc dans l'approche genre bi ñuy wax noonu c'est des piliers dans la lutte contre le paludisme parce que ñoom ñooy tey jii mi ñuy def CPS bi jigéen ñi ñooy indi seen i doom boo demee di waxtaan ci wàllu sibéri jigéen ñi nga fay fekk góor ñi duñ la tal ñu ngi ci damier ba comprendre nga c'est les relais. donc c'est de relais donc euh, c'est une façon de de, rendre hommage aussi ci li nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu xeex ci groupe bi. Mhm. donc euh, les forces armées parce que tey jii garnison boo dem ay militaires ñoo fa nekk ay euh, consultations yi tey man ba ma nekkee Kédougou. Euh, mun naa ne quarante pour cent de la population ils avaient l'habitude di consulter donc ñooñu il faut ñu lëkkaloo ak ñoom mhm. le ministère de l'éducation nationale am nañ des approches qu'on appelle les PECADARA prise en charge dans les daara oo xam ne dañuy jël benn jëwriñ ci benn dara former ko pour bu ndongo yi amee ku ci am sibiru mun a xool nu nga koy jëlee en charge donc pour te dire que ñun amul benn aspect boo xam ne teguñ ko sur la table pour mener à bien l'engagement des entreprises privées dans le financement de la santé récemment lancé nañ le 21 novembre passé en collaboration avec la fondation Ecobank mm une mobilisation des ressources financières mhm. boo xam ne ça s'appelle zéro pari les entreprises s'engagent pour que xaalis bi nga xam ne tey dañ koy jéggaani fële entreprise yi nekk ci réew mi war nañu mën a contribuer tey je donne l'exemple boo demee Kédougou il y a des sociétés minières qui sont là-bas ils devraient participer à la lutte contre le paludisme c'est dans leur intérêt parce que mm. tey boo fa nekkee di exploiter or say ouvrier nekk en bonne santé mais sa business day marché mais bu nekkee ne sa ouvrier ñaari fan ñett yu ne ñoom si rentabilité c'est donc pour vous dire que donc il faut que ñëpp jàpp ci c'est pas seulement affaire de santé mais c'est affaire de la nation mm-hmm. c'est comme dans le cadre de la Covid mm-hmm. la mobilisation qu'il y a ici ñu bañ a baisser les bras que ensemble ñu mën a xeex fléau yi nga xam ne risque de de yàq lu bari ci suñu réew mi yàq suñu système de santé bi donc feebar la boo xam ne nit munu fee nekk ci réew mi te doo ci participer. ñëpp ci war a jàpp. Mhm. te bàyyi wax ji. Mhm. Mm. Euh, mu mel ni nag euh, foofu le le le message est clair waa PNLP bo ah, bu weesoo tournée yi ngeen di def euh, sur le plan national da ngeen di génn sax ba dem ci yeneen gox yi en deux mille vingt ci atum deux mille vingt et un bi rek dootu ngeen def benn visite de travail foofu ca Gambie loolu lépp rek ngir amal li ñuy duppee préparation wu campagne synchronisée soxal couverture maladie universelle en moustiquaire imprégnée. a longue durée d'action euh, tey jii euh, boo ñu doon defal euh, benn xayma ci seen tournée boobu lan nga ñu ci mën a wax Doudou hmm. Sène effectivement toujours ci hmm. aspect xeex si bureau bi parce que tey Sénégal dafa ne moom dafa bëgg a éliminer hmm. mais Sénégal bindoon na noo xam ne ak yeneen réew yi Gambie dafa nekk biir Sénégal mën naa wax ne est-ce que yow mën nga xalaat ne si biir mën na fi jóge alors que Gambie jógewu fa ba tax na ñun dañoo war a lëkkaloo ak Gambie ni ñu war a lëkkaloo ak Guinée parce que Guinée boo demee Guinée tey Kédougou ay Guinée rek a fa dëkk. Mhm. frontière bi dañuy dem ak dikk boo demee Tamba Maliens yi dañuy dem ak dikk camions yi ñu ngi dem ak ñëw ba tax na Mauritanie bët gànnaaru Sénégal ba tax na dëkk yi ñu wër yëpp dañoo am obligation lëkkaloo ak ñoom ñu tàmbali nag. ak waa Gambie loolu ñu yóbboon récemment foofu pour ñu mën a préparer li ñuy wax campagne de distribution universelle des moustiquaires mhm. chaque trois ans nee naa dañuy organiser en deux mille dix neuf ñu tenté première expérience bi mhm. di séddale ay sànke mais bokk ko ak waa gambi parce que bu njëkk ba Gambie day organiser mais dafa am ay village ay dëkk yoo xam ne ci frontière bi la ñuy nekk mën na nekk village boo xam ne Sénégal gën a jege mais Gambie la bokk mhm. comprendre nga. Mhm, mhm. ba tax na ñoom seen campagne boobu boo dëkk boobu duñ ko jël en charge te Sénégal duñ ko jël en charge. Mhm. donc ñun ñu lëkkaloo ak ñoom pour wax ne village yi nekk foofu yëpp. village yi nga xam ne dañoo gën a jege Gambie waa Gambie moom mën nañ koo traité mën nañ la koo jàppale jox leen ay sànke ñun village yu Gambien yi nga xam ne dañoo nekk boori Sénégal ñun ñu boole leen ay charge parce que Sénégal ak Gambie ak lu waay mën a wax peut-être xanaa nattoo ñu dal rek tubaab yi séparé ñu waaye benn réew la Sénégal ak Gambie nit mënul muusa ko mucc mucc mucc ba ñu waruñoo bokk di àndandoo di defandoo lépp ci fànn yëpp nag. Mm-hmm. parce que man boo séjourné Gambie sa yaram dafay daw ay séeréer nga fay fekk ay joola ay manjaak ay lépp. Hmm? Mm-hmm. donc réew la boo ñaari réew la yoo xam ne seen intérêt mooy lépp lañ ko war di defandoo. Mm-hmm. ba ba ñuy nekk benn réew. te yéen ñi ñaan suñu borom bu ëllëgee yàlla def ko. Mhm. man dama gëm ne Sénégal ak Gambie mënut a mënut a problème sax waruñ ko fa wax. Mhm. te lépp lañ ko war a ànd di ko def ci noonu nag la ñu ànd di ko def di leen gërëm à travers les ondes xaw ma ndax nañ ñu déglu foofu. Mhm. mais bu ñu leen di déglu foofu mu ngi leen di sant parce que bu ñu fa demee dañuy accueillir une façon boo xam ne extraordinaire. di remercier ambassadeur bi parce que ambassadeur bi taxawu nañu fa bu baax a baax ba réunion bi am nañ ñu fa tënk. wax ban période la ñuy commencé def campagne bi ban façon moustiquaire la ñu war a yóbbu. Mhm. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wax nañ ko foofu pour lëkkaloo ensemble. Mhm. même boobu ñuy def noonu ak waa Gambie ñu ngi xalaat def ko ak waa Guinée Bissau ñu xalaat def ko ak waa gine Conakry mais en même temps ak waa Mali. mais cette année euh, en partir de deux mille vingt trois ci la ñuy def suñu campagne bu mag boobu. Mhm. boo xam ne dañoo war a séddale sànke fépp ci Sénégal. donc euh, loolu lañ demoon doon waajal. li ñuy wax approche transfrontalière mhm. bi ci des balaa moo koy fàtte mooy wàllu recherche parce que gëstu dafa am solo tey ñun dañu am chance ci wàllu xeex si bi ñu am ay kàngam yu mag a mag reconnu sur le plan international sur le plan mondial professeur Daouda Ndiaye yaa ngi koy dégg professeur Babacar Faye ñoom ay kàngam la yoo xam ne ci wàllu sibiru dañ ci am ay xam-xam yu leer nañ mhm, mhm. ñooñu dañooy lëkkaloo ak moom dañuy dañuy gunge ci seeni xalaat ak recherche yi ñu def parce que suñu réew yi tamit dañu war a am cette capacité tey Covid bii nii coow lu bëri li ñun tey chercheurs yi waroon nañoo taw xool ñun yan jumtuwaay lañ am suñu réew. Mhm. gis nañ ñoo xam ne ci wàllu traditionnel ñu ngi def ay mbir. Mhm. yooyu war nañ ko jël gëstu ko xool ndax mun na jëriñ. réew mi lañ donc ñun loolu donc recherche dafa am solo ci biir réew. ba tax na ñun tamit chance boobu lañ am fii ci wàllu Cheikh Sibiru bi. Mhm. en permanence ñu ngi def ay recherche. ñu ngi def ay gëstu pour wax ñu lii moo baax lii moo cetera ci fànn yooyu la ñuy tënku ñun pour def parce que tamit euh, dañuy wax recherche et action. action. voilà c'est pas des recherches yoo xam ne c'est juste pour def ay publications. Mm-hmm. mais lu ñu gëstu ba gis ne lii baax na dañ koy jëfandikoo. peut-être euh, am na ñoo xam ne ñu ngi déglu émission bi mais dinañ ne lu tax doole leen jëfandikoo artémisia am na ay gëstu yu nit di def. Mm-hmm. ñu koy def. ñu ngi koy def parce que tamit loolu moo am. mooy suñu intérêt. gis nañ Covid nu mu demee nii lu ñu war a jëfandikoo bitim réew la war a jóge man jàpp naa ne suñu réew war nañoo toll foo xam ne dañu war a gëstu ba xool li nga xam ne mooy suñu aada ak cosaan yi nan lañ war a mën a fexe ba moderniser ko xool li ci nekk lan mooy am njëriñ ñu mën ko jël ko transformer ko en modernité. Mhm. jox ko askan bi ñu fajoo mhm. parce que dinañ am benn jamono boo xam ne dëkk yi koy tëju. dëkk bu nekk sa bopp ngay tal te xam naa ne gëm naa ne tamit suñu réew mi ils sont de ça yàlla ni ñuy dimbale te ñu ngi ciy xalaat nan la ñu war a demee parce que pas pour rien ministère de la santé am division boo xam ne exclusivement réservée à la médecine traditionnelle. Mhm. médecine traditionnelle boobu dañ ko war a gën a. valoriser lëkkaloo ko ak universitaires yi ñu xool bu ñu nee Bantambare Bantambare gis naa ñoo xam ne dañ ko use. lan moo ci nekk il faut que ñu gëstu ko. dem yóbbu ko ci laboratoire yi seet li nga xam ne moo ciy jëriñ askan bi ñu jël ko transformé ko jox ko askan bi ñu koy jëfandikoo. au que lépp ñu koy jëlee ñu bitim réew. loolu tamit c'est un message boo xam ne occasion la ñu jàll na ko ci seen euh, wax nga ko euh, médecine traditionnelle yaako ko yaa yaako yaa yaa du ma sax yaa ko junj yaa wax euh, tey jii mu mel ni kon su ma la déggee muy médecine traditionnelle bi ak médecine bi de manière général war nañu travailler en symbiose pour ndax ku ci nekk. ñoom certainement am nga loo xam am nga loo e bu ñu travailler en symbiose certainement euh, résultat yi dina gën a euh, fructifiant que jamono ji de. c'est très évident. Mm -hmm. mais il faut quand même ñu structurer la médecine traditionnelle. Mm -hmm. du samba alar bu jóg rek ne man voilà mën naa faj nii mën naa faj il faut ñu codifier ko xool sur le plan scientifique lan moo tax ñu war a mën a wax yow Fatou ko yow tu es un tradipraticien parce que nit balaa ngay jëf dara danga koy jàng. Mhm. ñu am ay structure yoo xam ne ñooy valider sa compétence ki wan ne kii xam bu wóor la yore ñu valider ko ko homologué ko ne kii kat lu la wax noonu mhm. mu lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñooy am na des laboratoires de recherche qui sont là. tout à fait. war a def ba lëkkaloo la ñoom ñëpp ñu mën kii buñ ko nee lii mën na ko ku génn ci télé bi di wax ñu dem fekk la fa jël xool ndax sa compétence yi nga wax dëgg la am du dëgg bu newul loolu ñu teg la ne lee mais ku Samba Sidibé bu jóg yàlla ma ci ba maa ngi jégalu <laughs> taxaw ci rajo bi ne mën naa faj lii mën naa faj lii. mën naa faj mu mel ni sax léegi ñoom ñoo occupé eh, peut-être seen seen yi ñoo koy def. et ça fait beaucoup de dégâts aussi il faut le reconnaître. Mm-hmm. yëfi santé du yëfi caaxaan. lu caaxaan luy jëm ci yaramu doomi aadama. dañ ko war mm-hmm. dañ ko war mais dafa nekk suñu cosaan ba nit ñi dañ ko gëm. tout li tax nit ñi gëm ko parce que boo demee ci àll bi ñuy dee ci ñu bari fa la ñuy njëkkee. ñu njëkk a dem seeti tradipraticiens yi donc ñun dañ ko war a jël en considération parce que xam ne loolu moo nekk ci suñu cosaan fexe ba valider ko loolu nag nit ñi nga xam ne ñoo yore ci fànn boobu war nañoo réfléchir pour dans les dix vingt prochaines années ñun am suñu médecine chinois yi bu ñu demee ba ñu légaliser seen médecine à travers le monde nañ ko mën a légaliser pour les africains foofu nekk ay acquis en tout cas man jëm naa ko quoi voilà dañu foofu nekk ay acquis. voilà c'est ça. Mm. donc c'est des c'est c'est une volonté et que les gens fassent parce que nag c'est pas évident. parce mm-hmm. que c'est des enjeux financiers énormes. jëm ci garab. je vais pas rentrer dans les détails. Mm-hmm. donc euh, voilà. Mm-hmm. il faut que africains yi tamit oser. autorités yi jàpp ci pour que loolu mën a nekk parce que c'est des enjeux dans les dix prochaines années dinañ dem benn moment dëkk bu nekk sa bopp ngay tal te Covid bi mi ngi koy wane kenn du yóbbaale sa morom du yóbbaale sa morom loolu moom dama ko gëm. Euh, Doudou Sène euh, bokkoon na tamit ci ci ci seen ci seen euh, programme yéen waa PNLP lu ñu duppee. Mhm. aspersion intra domiciliaire ngeen amaloon ko ci Linguère Matam Ranérou ak Kanel lu ni mel ça consiste à à pour être un peu plus explicite pour ñu ñuy déglu. am na wax naa ko ci benn yoon instant ba may définir stratégie. mooy. ay produits li ñuy wax insecticide la comme ni ngay jëndee euro wala nga jëndee mm, mm, yotox mm, mais yi ay produits spécifiques la spécifique yoo xam ne seen durée de vie boo ko pompé ci mur bi nga ko war a pompé mun na def juróom benn weer benn yoodu dugg sa biir kër ñu utiliser ay produits yoo xam ne ça coûte excessivement cher mm-hmm. ñu dem localiser yooyu ñu wax noonu zone sud bi ñu jël Kédougou jël Makacoulibantang Koumpentoum ak Koungheul fa lañ koy def. Mhm. chaque année pendant trois ans bii moo doon déwén mooy troisième année. donc dañ koy ci kër yi te day wàññi bu baax a baax population bi nga yoo yi nga xam ne ñoo koy indi. Mhm. ci wàllu peut-être. Euh, euh, disons effet bi mun a am ci doomu aadama parce que les gens se des questions. si si amul effet boo xam ne. bu garaawul bu nocif la. ok parce que c' est des produits yu seet du ko saytu ministère de l' environnement da ci dugg le centre de euh, centre de comment ça s' appelle euh, pour les pour la empoisonnements là centre antipoison centre antipoison. ñoom ñëpp dañ ci bokk ci xool ban produit la utiliser. Mhm. produit boobu buy ñëw fii dafa am fu muy jaar ndax homologué nañ ko par OMS est-ce que le ministère de l'environnement joxe na autorisation avant ñu koy utiliser te dafay nekk produit bu efficace. donc loolu def nañ ko ci gox boobu def nañ ko côté ba gànnaaru Sénégal Linguère Matam Ranérou ak Kanel mhm. ñoom ñoo ci bénéficier woon pour environ plus de un million deux cent mille personnes yoo xam ne tey protégé nañ leen contre le paludisme grâce à cette aspersion intradomiciliaire parce que dafay yo nga xam ne ñuy indi mhm. donc mhm. loolu moo doon aspersion intradomiciliaire yi. d'accord euh, dellu si waat rek euh, ñëw ci li nga xamante ne moom moo di. dellu si waat rek ñëw ci li nga xamante ne mënuñu wax paludisme bi ak fi ñu toll malgré tout ce qui a été fait ñu bëggoon rek ba ñu bëggoon defal benn petite évaluation le taux de prévalence ak tam taux de létalité Sénégal jéego yim ci def fuñ ci toll tey. Euh, donc loolu wax naa ko c'est pas en face de moi les chiffres exacts. d'accord bëgguma joxe ay ah ce que je peux te dire. que la prévalence actuelle du Sénégal parce que bu ñuy wax prévalence mooy jël boo jëlee téeméeri xale ñan ñoo ci am doomu jàngoro bi ci seen biir. Mhm. dernière enquête bi ñu def en deux mille euh, deux mille douze deux mille dix sept. Mhm. la prévalence générale au Sénégal c' était de zéro virgule quatre pour cent. c'est-à-dire motul sax un pour cent mhm. mais zéro virgule boobu sur le plan national dafa am une répartition inégale boo demee Kédougou il était à sept pour cent am nga zero virgule quatre pour cent sur la moyenne nationale mais boo demee Kédougou il est à zéro à sept pour cent pour wane ne foofu concentration bëri na boo demee nu mel ni Kolda c' était pratiquement à deux virgule cinq je pense pour cent mhm. donc foofu la kii bi boo demee lu mel ni bët gànnaar Murit euh, ma ma Matam c'était à zéro virgule zéro un pour cent mhm. pour dire que sibiru bi wàññeeku na bu baax a baax a baax mhm. li muy rey ci kii bi c'est des chiffres bruts que nous avons d'accord à travers les structures l'année dernière on a eu à peu cinq cent cinquante décès cinq cent cinquante personnes yu ci faatu mhm. environ mais comparé en deux mille euh, deux mille deux mille deux mille deux mille vingt deux mille deux mille deux mille dix deux mille mhm. ñu ngi woon ci à peu près trois cent soixante treize décès yu ñu amoon. mais mooy wane ne décès yi xaw na yokk tuuti. Mhm. parce que le fait ñu retardé dem ci structure yi. bokk na ci contribuer ci ci ci loolu mhm. ba tax na daal peut-être le dernier message que je voudrais donner. mooy quelque que soit la maladie bi ñuy combattre. il faut une adhésion de la population il faut une participation concrète de la population loolu mooy garantir le succès et lancer un appel aussi par rapport à la situation de la Covid l'heure est grave comme diraient certains mm-hmm. il faut que les gens taisent leur querelle se mobilisent autour de l'essentiel ñun ñëpp ñu àndandoo xam ne suñu réew mi buy suuxee ñun ñëpp lay suuxal mais bu baaxee ñun ñëpp lay baaxal affaire bi Macky la ak ay diw yooyu yëpp ay waxi caaxaan la nañu ànd li nga xam ne moom lañ jiital ci réew yi ñu ànd ak ñoom jàppale leen ba lii nga xam ne moom la ñu dénk ci wàllu wër-gu-yaram ñu xeex ba am ci ndam parce que am na foo xam ne bu ci réew tolloo lépp dañ ko war a bàyyi jublu ci li nga xam ne mooy essentiel bi mooy xeex corona bi parce que corona bi dafay lëmbe lépp ñun sibiru bi duñu mën a xeex normal ñu war a julli duñ mën a juli normal ñu war a gàmm duñu gàmm normal ñu war a dem église duñ mën dem église donc nit ñi nañu góorgóor lu ñu war a dem marché parce que ne naa la tey jii situation bi bu duloon loon gi peut-être yi gars yi di dawal nii mm-hmm. mais confinement la laaj mm-hmm. ku nekk toog sa kër un mois d'affilée ba affaire bi wàccaat ba affaire bi dal parce que mm-hmm. situation bi c'est grave la situation est grave à mon avis donc euh, ñaan li ci des mooy ñaan tamit Euh, réew mi réewu ñaan la man dama gëm ne dañu war a dem ci suñu kilifa ñu ñaan. Mhm. dem ci suñu Muntaxa dem ci suñu Mbay Si dem Njaasaan dem Kaolack neleen leen ñaanal leen ñu yàlla dimbali ñu ci mbas mi mu jóge fii. tamit loolu dañ koy faral di bàyyi bañ a bàyyi xel mais daf ci bokk dañu war a ñaan. foofu laa laal terminé jërëjëf. <laughs> Eh, waxtaan wi am na solo ñu doon waxtaanee li nga xamante ne moom moo di paludisme waaye mu mel ni li ñu waxtaanee ci Covid bi actualité oblige foofu tamit euh, dudu Sène daanaka wax na ci ay wax yu am solo lool ba ma waral sax muy ñaax askan wi ñu jël seeni méthode euh, mesures préventives yi respecté lépp lu jëm ci mesure barrière waaye tamit dem ci bërëbu ñàkkukaay yi daal di fay fas yéene ñàkku ngir lépp ngir mën a aar seen bopp waaye aar ñi nga xamante ne ñoom la ñu dëkkal euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag ma amaatoon mbégte ak bànneex doon dal ki nga xamante ne moom moo di du Sène mu nekk kàngam en santé publique waaye tey ñu doon ko dala ci li nga xamante ne moom moo di coordonnateur national bu programme de lutte contre le paludisme jaajëfal leen bu baax a baax fàttali ne Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy moo nekkoon ci xarale bi jërë jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité